bu dee yaa ngi doog a suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. tontu dama lay tontou, dama bëgg mu leer parce que dafa am yoo je ne peux ko bàyyi mu Pourtant, pour ton information si liñ ma tuumaal nii j'ai déposé une plainte depuis hier l'enquête suit son cours parce que.

di kàcc guddeeg bëccëg ngir yàq parce que amatuñu leneen lu ñu opposé woo lu dul loolu waaw nag. Ah, léegi waaw non defal ah, ndànk non dangay bàyyi ma terminer. mais sama yow soxna Yacine Fall. ak doomam laa la wax. soxna Yacine Fall poste bi ñu ko jox mérité na ko wala mérité moom gros calibre la mérité na ko. <laughs> ah la moom moo ko wax. Sophie <laughs> Sophie Sophie Zinga. li ñu ko jox mérité na ko ko. non tontu ma ba pareil. avant ñuy yegg ci. relation Non, sax non dama lay profil pour profil. non xam non entre nous profil pour profil mérité le non je nga El Malik. mais les femmes, leneen lu ñëw bëri que ça soit Sohna Yassine Fall que ça soit doyen Jacques Abibsi. que ça soit euh, euh Sophie Zinga si 2018 nous avons amul lu projet l'union ñu xamul 2018 ba fi may waxe yow amut luñu dajul ci projet donc war nañu seddu. dégg non non rien à voir dama la bëgg wax ben affaire. papa ji kenn ñu ko papa ji mu nga tok dans sa retraite bien méritée ñu nommé ko fi conseiller spécial premier primature té mom yëgu ko président Sonko yëgu ko nga xey def ko ci ce journal à la une. ñëpp di ko ngawti ngawte toute une famille nga dugal seen photo loolu jaadu na yow loolu di ko def Yacine Fall bi ñu nommé Sophie Zinga nekku fi nga yaakaar ne Yacine Fall mooy woote ne nommé leen ma diw Sophie elle a fait ses dans le domaine de l'artisanat ministre de l'artisanat gis ko copte ko ñu recommandé ko ko mu recruter ko bala moo doon neex kay ñu ne kat dañ ko fa tek ci yaa mu moralement noo ko expliquer moralement y' a aucun problème xam nga lutax yassine Fall yassine Fall nommé wu ko. lu wu ko nommé wu ko ci département Sophie Zinga a fait ses preuves dans un domaine qui n'a rien à voir avec le domaine de sa maman. mais blo bañal nañ ko fi. jël ko fa bañal nañ ko fi bañal nañ ko fi Yacine Fall yorul décret De lu baax li ma lay wax bu Bassirou Diomaye Faye nommé won rakkam bu xarañ de ci poste wala dara su pas nga comparer mais man frère bo ingénieur en génie euh, chimique etc. cetera amuñu droit nommé ko postulé na ci poste di Sénégal waruñ ko fa nommer parce que sama frère. Mais la question c'est quoi ci ministère tax xalaatuma sama ministère nommé ma sama benn mbokk. loolu tax may wax. non non parce que loolu moo tax ma wax lako Yassine Fall nomewul ken benn mbokam ci ministère. ñun on a évité ça parce que xam nañu ne ci xeet yu ndaw yoy non lañuy ñuy lañuy a xaar lañuy xaar. ok loolu fofu nak duñu fa gis. d'accord léegi Aladji non émission bi wax deug Yalla. Deug du romb nopp. Amna na lu ko waral non dama ni da ngeen jaay nit ñi que problème mu Sénégal dañ koy régler dañ koy régler ci ñu problème mo fi nek kon buma wax problème man solution la bëgg dégg ok man bul ma wax problème motax tax la dégg nga wax problème jëm suba xam nga solution wessul nga fekk fi réew mu problématique di tek ay solution ok mën na la dégg ci solution moy salaire manké wul neel waaw moy dañ fay fekk non non non amna ñu manké salaire ah bari na ñoo xamni ñu tass ay salaire contractuel yu bari ñu gis ñi ngi lacc seen ay salaire mu ñu siteel ma wax ma non non yang koy dégg ñepp a koy dégg dette sëñ bi bo may wax mbir bëgg ma tonti da ngay duut baram ne li la

le programme feuille ndaw yi duggal ci recruter plus de 25 000 personnes dans ko collectivités locales yi dévoyer ou relou 2021 ba légui entretenir au tali di notre patrimoine routier et autoroutier ce lan len jox fait. len fay fait sen salaire non avons fait un ñoy ñew arrière salaire bu 6 mois

Euh, le budget les dépenses de l'État ak naka lañuy ñuy lijjantee ba régler suñu ay problème kooku mom li am solo ah, solution nga bëgg. xam nga affaire yi solution ah, ngi non affaire yi xam nga xam nga. non dama la bëgg wax ni opposition mën na nekk pexe. mais xam nga ni gouvernement ak gouverner mënul nekk pexe. lépp fay jaar ci yoon lépp fay am transparence lépp fay leer Do fi nek naan ma non ay pexé lañ ko liggéentee dang naan ma ni lañ ko liggéentee ni lañ ko Non. mu leer ci bop nit ñi ndax ci ay bor lañ ko liggéentee ci luñ ko liggéentee dama ne la waaw duñu Messi waye am nañ xarañté fu xam naka lañuy yoré état naka lañuy ñuy li nécessaire naka lañuy rationaliser naka lañuy euh, euh régler la dette naka lañuy wouté xaliss lolu yalla dafa dogal né ñiñ ko sékkal lolu la xam déggoo fi pexé ndax pexé du xam-xam comme niko ko Moussa Balla Fafana di waxee mhm. ña doon wuti pexé ñoñu ñu fi bàyyil guuta gi mhm. Ah, ñun xam-xam lañu waxi guuta gi mom teg ko na le. xam-xam lañu indi waxi guuta gi moom waxi guuta moom. deug droit mi nopp. bu dee yaa ngi doog a suñu vidéo bul faté abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment.